Ghazali benn la ci établissement yi nga xam ni euh, dafay taxaw di jàppale nguur gi xam ngeen jàngal doomu jullit ñi yar leen loolu sas la woo xam ni nguur gi moo ko sasoo maanaam képp kuy xale ci réew mi rek am nga àq nguur gi jàngal la waaye ndax nguur gi mën na jàngal ñëpp déedéet loolu kon moo indi école privée yi bu ko defee école privée yi dañu ñëw taxaw di jàppale li nga xamante ni moom mooy euh, nguur gi ci wàllu éduquer xale yi ak wàllu jàngal leen ak wàllu ommat leen kon ci loolu euh, la directrice mu ngi jëkkee di nuyu ak a sargal ak dalal mboolem gan yi nga xam ni teew nañ fi parents d'élèves yi euh, directeur école yi inspecteurs yi nga xam ne ñu ngi fi chef de quartier yi représentant maire bi ñëpp nga xamante ni woo nañ leen ñu wuyu si leen ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen dalal di leen wax bismillah ci cérémonie bi nga xam ni école bi daf ko organiser ngir tey bégal xale yi ngir tamit bégal waajur yi ngir wan tamit waajur yi ne leen ah seen doom yi ngeen ñu joxoon de wax dëgg yàlla diiraa ana bi yëpp ñu nekk ak ñoom ñu ngi leen doon jàngal ñu ngi leen doon yar ñu ngi leen doon tegte di leen wan li nga xam ni moom mooy àddina kon bis bi euh, bis la bu màgg ci ñun bis la bu màgg ci direction bi nga xamante ni mooy direction euh, Zeynab Ghazali man ma nekk kenn ki nga xam ni maa yore encadrement li nga xam ne mooy enseignement arabe bi ki nga xam ni moom moo yore enseignement français bi di doyen Diouf moom yàlla def na euh, léegi lañ ko woo am li nga xam ni moom mooy ngànt ak groupe direction yëpp ak mboolem enseignant yi ak mboolem enseignant yi ñi ngi ànd di leen nuyu di leen gërëm di leen wax bismillah ci bis bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala nag mu may ñu tàmbale koog bismillahi rahmaani rahim mais jeexale koog alhamdulillahi rabbil alamin may dellu di ñaan paaraay rek ne leen nag bu leen wax ni toogaay bi yàgg na tey bisu xale yi la na ñu ngi leen di ñaan ngeen muñ waaw ñu muñ ànd ak xale yi ànd ak cérémonie bi ba yàlla jeexal kook jàmm incha allah lu toogaay toogaay bi yàgg jàng neuf mois moo ko gën a yàgg te xale yi neuf mois ñu ngi woon ci banc di jàng ba yàlla def euh, tey mu nekk seen bisu tëj nekk seen bisu cérémonie kon parents yi nañ leen muñal bu baax euh, ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy seen feet bi ba mu jeex kon ci kàddu yi gàtt yooyu foofu la ñuy gàttalee kàddu yi euh, di delloo modérateur bi kàddu gi di leen wax yéen ñëpp bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Azali du par ma voix vous souhaite les bienvenus. Et comme nous sommes dans un pays et que chaque pays a ce qu'on appelle hymne national, donc nous voudrions, avant de faire quoi que ce soit, commencer par l'hymne national du Sénégal qui doit être santé par les élèves eux-mêmes. Merci. Merci, merci, merci, euh, macha allah macha allah ñu ngi kontaan ci xale yi ndax xam nañ ne ñu ngi leen di jàngal ay leçons civiques mooy nan ngay dundee ci sa réew. rek fexe leen seen doom yi waa Zeynab Ghazali jàngal askar xale yi ànd ak yéen di ko def suba ak ngoon. loolu dina leen jox confiance ndax yàlla li mu wax du dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax du dañ te du ngeen yàq seen ay jëf ndax am na jëf yoo xam ne soo koy def dafay yàq sa jaamu yàlla mooy boo yaakaaree ne am na leneen lu lay jëriñ wala leneen lu lay lor lu dul yàlla allo allo allo allo mes

Bravo les amis. Allez, tapez les mains. Tapez les mains. Tapez fort. Tapez fort. Tapez fort. C'est bien. Allez, samay loxo maatet maatet sama bopp sama bopp mes yeux mes yeux mes yeux mes yeux samay bët samay bët bakken sama bakken maabush maabush sama gémmiñ sama gémmiñ mes oreilles mes oreilles samay nopp samay nopp samadan samadan Mes pieds, mes pieds. Mes pieds, mes pieds. Mes pieds, mes pieds. Samay tànk, samay tànk. Samay tànk, samay tànk. Bravo les enfants. tap tap léeme tap tap léeme tap awo tap amba tap pasi tap parla presse presse Awo. Presse Amba. Presse Amba. Presse par-ci. Presse Réjouissez-vous.

ko bañ a jaamu del sax si jéggalu say tooñ yi bañ a nagu say bàkkar nu mu tollu rahman du tànqamlu ku fi regg moo la lewal lu fi yegg moo ko matal lu fi antu moo yewenal nañu saasi di ko sabbal tànn kenn ci jam yi wàcceel ko ayam yi nañu roy ci yoonen bi ndax moo gën ci mbindeef yi moom la yàlla def xaritam te xeñeel na ay soppeem nañu xàll aw yoonam may tuluy woroog sunna ginnaaw loolu ñu ngi gërëm suñu ñaari way jur fay leen du yomb si ñun li ñu war mooy di leen ñaanal asalaamu aleykum ñun waa Turub Jottali ñoo di joxe kàddu yi macha allah macha allah allahu akbar da leen wax allahu akbar allahu akbar takbir takbir summa takbir baada takbir waa xanaa yéen yéen mun leen wax allahu akbar yéen góor ñi góor ñi yéen laay waxal takbir non waxuma leen xale yi noppi leen yéen góor ñi non non bàyyil yéen jigéen ñi takbir oh tët tët waxuma ngeen waxal seen yaay yi bàyyi leen seen yaay yi wax yaay yi pare ngeen ana yaay yi pare wax allahu akbar nañ yëkkati seen loxo allahu akbar takbir kaw loxo yi moo gën a jóg baat yi yéen góor ñi xaaral ma ñëwaat ci yéen Bonjour maman. Ma fille, comment vas ah ma fille yaa ah rafet na. est-ce que tu as bien dormi? oui maman. tu as appris tes leçons? oui ton petit déjeuner? ah kontaan naa ci yow. prends ces mille pour ton goûter. merci maman. allez Bonjour maman. Bonjour ma tante. Bonjour. Eh, reviens. Où est que tu vas avec ton sac? Je que tu as déjà fait la vaisselle? C'est pas mon problème. Va faire la vaisselle, sinon tu n'iras pas à l'école. kii daf may yeb wala simu neexuma dara attends je vais voir si elle est en train la vaisselle Bonjour les élèves, asseyez Alors, debout. Assis. Debout. Assis. Bonjour maîtresse. Bonjour Hassatou. Tu étais Ah bon? La vaisselle jusqu'à cette heure? Oui es toujours en retard et Moïse vient toujours en retard. Vous habitez ensemble, non Oui, le D'accord, assieds-toi, règle ça après. Debout. Assis. Alors, nous allons faire quelle leçon aujourd'hui Oui, Ramatoulaye. Nous allons faire Qui va me rappeler la dernière leçon de vivre ensemble Oui, Khassatou. La dernière leçon de vivre ensemble porte sur l'accord de l'adjectif qualificatif. Ah bon, vous êtes d'accord? Ah, oui. Alors, qu'est-ce qui va qui, qui va l'aider? Moi maîtresse, moi maîtresse, moi maîtresse. Oui, Marie-Sey. La dernière leçon sur vivre ensemble porte sur les droits de l'enfant. Très bien, qui va me citer les droits de l'enfant? année. Mais il est le petit de l'homme. Il a droit à l'égalité. Droit à un nom et à une famille. Il a droit à l'éducation. droit au loisir et à la santé. Il a droit à la protection. Droit à la paix et à l'expression. En bas la guerre et que vive la paix. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ceci que tout les différences de race, de couleur. de peau, de religion, de langue ou de culture, qu'il soit un garçon ou une fille, qu'il soit handicapé ou bien portant. Toutes les enfants ont des droits. Nous tous devons respecter tous ces droits. Vous les parents, éduquez vos enfants, car c'est un droit qui doit être africain. un grand un jour. Dites-lui les vérités qui demeurent pour toujours. Le seul vrai héritage est de lui donner en bas âge. Toutes les qualités qui font de lui un imprégné de sentiments et de responsabilité. Montre-lui la route qui mène au savoir, car la connaissance soutient l'âme, le renforce, le rapproche de la vraie et le sauve d'un abîme. Et elles sont collagènes et se veulent toujours charges injustes avec lui-même et le soir avec les autres. Il vivra alors son bonheur éternel. Oh, violence! Avec ton cortège de malheur et de douleur. du portail de l'école, on attend des pleurs. Dans le terrain vague, on attend des pleurs. Les jeunes qui jadis regardaient leurs frères avec amour, aujourd'hui les fixent du regard sans pitié dans la cour. À l'aube les travailleurs matinaux. Sur les grandes, tu crées beaucoup de monde.

Prends bien soin de toi. Ebola, palu, sida, c'est pas bon. Ebola, palu, c'est pas bon. Écoutez-moi ces paroles qui vous parlent. Léopold Sédar Senghor de la paix. Léopold Sédar Senghor, tam-tam immortel. Il bat de l'huile dans la vaste forêt des Noirs. Là-bas en Afrique négresse, dans mon pays le Sénégal. Vois-tu ce gros baobab? C'est lui le fondateur de l'Afrique. baobab grand arbre secret du pays noir quand tu les eaux de ce tam oh, mon enfant respecte-moi ce son de le souvenir de tes anciens tournois dont chaque jour ce tam le nom vénéra à travers le monde d'appui d'après le possédant Senghor ginzkat du nekk fàqmaan kon dina am sécurité dina am cadre boo xam ne dina ci mën a épanouir nee na bëgguñu itam ñu leen di violanté xale kenn waru ko brutaliser dañu war a wax ak moom di ko yedd di ko xamal di ko yee ndax loolay tax mu yiiru xale noonu ñuy sàmmee lii di jëmmam noonu lañu war a sàmmee xelam waruñu ko bàyyi muy seetaan luy yàq xelam ndax bëri na yuy am ci yenn tele yi yenn série yi day yàq xelu doomu aadama ndax yow parent bi da koy jàngal ne nit dafa war a nite série bi di ko wax ne aux parents comme tout individu Comme tout individu, les enfants, quand même, des droits. Éduqués, que en, en, en arabe. d'égalité. Pourquoi égalité Parce que nous verrons des enfants dont les parents ont quand même quelque chose. Peut-être il ne faut pas sous-estimer euh, cet enfant-là parce qu'il n'a rien. Ou bien je sous-estime celui-là, je sous-estime celui-là parce qu'il est handicapé. Euh, les deux enfants qui étaient là, ils disaient, ceci dit chers parents. Ceci c'est quoi c'est que les deux filles, euh, et, la, et le garçon, c'est ce qu'ils parlaient ici, ils nous parlaient d'éducation. Ils ont dit que l'enfant a droit à l'éducation, il a droit à un nom, il a droit ainsi de suite, ainsi de suite. Ceci dit, chers que tout enfant, tout enfant a les mêmes droits. Qu'il soit un garçon ou une fille, c'est l'égalité. Qu'il soit handicapé ou bien portant, égalité. Donc, c'était juste pour essayer de résumer un tout petit peu ce qu'ils ont dit ici. Et voilà, merci encore une fois. Les activités se poursuivent. Hein. Takbir Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? Je m'appelle Bintasson.

Njaay ana Elhaj Issa ana Elhaj Issa gisuma yow gisuma Muhammed <laughs> allo allo debout aca debout Debout. Assis. Debout. Assis. mais mais mais jug leen. samay loxo samay loxo. ma tête sama bopp sama bopp. Mes yeux, mes yeux. Samay bët, samay bët. Mes pieds, mes pieds. Samay tànk, samay tànk. Aya ma Aja daf leen ma gis. Aya awo masonna gisuma dara amba masonna à gauche masonna à droite masonna yëngal ndig coppi coppi maa sonn coppi coppi maa sonn coppi coppi sac dans sac savez-vous ce qu'il y a un chat il y a un chat un super un super beau chat chata chata chata mon petit chata mon petit chata mon ma grand-mère ma grand e la a fait ci elle a fait ça elle a fait ci elle a fait ma grand a fait tout ma grand a fait tout aywa shukran Atia, asseyez-vous. Atia toog leen déedéet jotagul añ bi jotagul. dégal ma ne sama añ bi. jotagul yéen. yéen balaa ñoo lekk lan la ñu war a njëkk a def. balaa ñoo lekk ba pare lan la ñu war a njëkk a def. ak lan la ñuy raxasee ak suuf. waaw. ak suuf. waaw ak suuf kay. waaw waaw waaw ak suuf. waaw ah. man ma teg ne nekkul suuf lan la ñuy raxasuwee Amadou Ba. laxaafu. ak lan yow lan la ñuy raxasuwee. ah alaxu. ak lan. alaxu. ana ma ko maman yow lan la ñuy raxasuwee. ndox. ndox waaw ndox ak lan. ndox ak omo. waaw ak lan. ndox ak ah. lan wala lan ndox ak lan. ndox ak ah, ama. ndox ak omo. bravo yéen xale yéen moom xam naa boo leen lekk rek ngeen raxasu ah? avant de manger qu'est-ce qu'on doit dire ah qu'est-ce qu'on va dire avant de manger la may lekk lekk bala may lekk damay tudd yàlla allahumma bari lana dina la la table alana ay rabbi misila bravo tàccu leen seen bopp et tegal leen añ bi ñu añ aca lekk leen li yéen a ko moom ak kan. aja aw. Thank you. Marie jàngal ma suuratul Fatiha ma dégg. suuratul Fatiha. Petit ñoo ñëw. allahu akbar allahu akbar allahu akbar xam ngeen ne ñi ñooy avenir du xale yi duñu ay xale wayu yee xam ngeen xale yi wayu yee wala xale yéegalal yéegalal ma ne bu doon xale yooyu rekk a des dinaa xaru ji lépp lu yàlla di allégué ab réew Sénégal romb nañ ko waaye bu dul woon alxuraan jiñ fiy jàng sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ fiy jàng kon yàlla tukkeel na fi kon yéen parents yi fi toog ak ñi lay jàngal seeni doom yi bokk nañ li tax yàlla alagul waa Sénégal est-ce que duñu gën a jox gëdd lislaam l'islam mooy la solution al islaam huwa al xallu Sénégal a toll woon nañ fi ay jamono yoo xam ne chaque weer ngeen dégg disque door ci musique wala déet léegi doo toog benn weer du dul dégg nga champion du monde ci wàllu alquranul karim Seyda liggéey bee ngi dem de Imaam Samb liggéey baa ngi dem de xanaa kay ñoo yàkkamti waaye liggéey baa ngi dem sunu mag ñi géttal ñu réew mi yaral ñu njaboot gi ba ñu bañ a màmm topp tubaab yi seeni set ñëw di leen xamal nan lañuy fexee ba tubaab yi jóge ci loolu ñu newoon ñëw ci lislaam kon liggéey baa ngi dox kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla yii nii mu bari ci réew mi tey wax nit ñi bu ñu doyloo rek li ñuy fay parents d'élèves yéen laay waxal bu leen doyloo rek li ngeen di fay daara yi bu dul sutura yàlla ñoom ñëpp tëj nañ courant yi àttanuñ ko ndox yi àtt àttanuñ ko location yi àttanuñ ko salaire yi àtt àttanuñ ko koo ci gis ci ñoom bi daaw bi jaaw na ndax stressu la vingt cinq ba la dix ndax salaire ak facture ndox mi électricité bi lépp te subvention amaguñ ko mu jóge ci nguur gi kon ci suñuy poos ñun lañ ko war a subventionné ana ñoom Ousmane ibnu Affanin nga xam ne am na cër woo xam ne ci lislaam dara joxu ko ko lu dul lu dul joxe ci yoonu yàlla joxe ci yoonu yàlla Ousmane dafa joxe ci yoonu yàlla ba yonent bi sallallahu alayhi wa guddi lëmm lëmm lëmm muy julli ñaari ràkka di sëlmal di julli ñaari rakkaa di sëlmal bi mu waree def safaak wiitir mu tàllal ñaari loxoom allahuma ardi an usman fa inni radin anhu yàlla man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa ci usman usman kontaan naa ci moom yow yàlla maa ngi lay ñaan nga kontaan ci moom yàlla nangu ñaan bi bi mu bi mu nangoo ñaan gi amatul dara lu Ousmane di def yàlla di ko ko toppe te Ousmane li mu doon dépensé ci alal bu fekkoon ne dépensé mooy tax nit ki ñakk kon Ousmane ñàkk na bu yàgg waaye bi mu yoree xilaafa gi ñi nga xam ne dañu beddeeku woon jaayante woon ak moom naan Ousmane dafay jël alalu nguur gi di ko dépensé ci famem te jamono boobu Ousmane ibnul Affan alalu boppam la doon dépensé kon wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu lépp lu ngeen jël ngeen def ko ci daara allah subhanahu wa moo leen koy remplacer yow ki la jox te laaju la ne la jox ma ma dellu la lu gën li mu la joxoon xanaa war nañ koo wóolu li ñuy laaj ñu dépensé ko ku ñu ko jox avant ñuy ñaan yàlla jox nañu wa aataakum kulla ma saaltumuuhu jox na leen lépp wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha yàlla nee na xewel yi ma mëmbëstal seen kaw su leen ko doon jéem a énumérer mënu leen koo takk kon nañu delloo yàlla njukkal nga ne man kat yàlla may na ma mun a fay trente mille par weer waaye mun naa jël soixante-dix mille boolee ko ci muy cent mille ma dimbalee ko daara ji ngir ma am ci martaba Ousmane ibnul Affan mooy al infaaqu fi sabilillah man de ku ma laajoon ci yéen ñu ndeyale la nga war fa yóbbu cinq cent mille dama naan jëlal vingt cinq mille yi yóbbu fa jël quatre cent soixante quinze mille yóbbul daara ndax loolay sekki koo jox cinq cent mille mu xeeb ko ne ba ma ko ndeyalee ma yaakaar ne un million cinq cent lay indi mu indil ma cinq cent mille kii day jéyoowul sax cër bi mu ko jox kii de doom ji bu juddoo du mu ko ko tuddee bu la gërëmee tey suba mu xas la waaye yàlla bu la gërëmee du la xas ba mukk ku doon jënd mees cinq cent mille wala deux cent mille nga ne bës ni ki tey mees bii ma koy teg sama bopp muy indi rëbbu yàlla dinaa ko def loo xam ne kiiraa nga yàlla la may jëral deux cent mille laa doon jënd chaque trois mois ma changé cheveux damay fexe ba chaque trois mois ma changé yokk ay malaaka yu may ñaanal benn deux cent mille yàlla la booyal ak deux cent mille malaaka ñu lay ñaanal trois mois ngay indi yeneen muy quatre cent mille nga indiwaat nga indiwaat kon buntu def ci yoonu yàlla mi ngi nii avenir u Sénégal mi ngi nii waaye nekkul ci yéegalal yéegalal nekkul ci bërëng barigo mi ngi fii ci qaala allahu qaala rasul sallallahu alayhi wa waaw waaw waaw kullu hizbin bimaa ladayhim fariquun waaw waaw waaw ndeysaan kon ñu bàyyi leen waa hmm? ñu déglu xale yi ñu ñaax ñu aywa waaye ma yitte woo leen aca yitte woo leen ka yàlla bi seede alquran amal xamal leen moo ne jëlle woom to leppe jàllal alquran soo bañoon yow julee de dool yàlla ko ni aywa macha kon ñu dégloo xale yi ñu jàngal ñu alxuraan bu neex aywa ñii ñoo ñuy tari suratul suratul أيوة سيدة أعوذ بالله أعوذ بالله شيطان الرجيم بسم الله allah macha allah allahu akbar ayca wàcc leen aywa waa suratul masad nañu ñëw aywa amina waa de anta ñëw leen Hadija waa ñoom ñoo ñu jàngal suratul masad aywa suratul masad suratul masad la macha allah takbir. takbir. akbar. Sir Sakondoa vivre. ayca macha allah léegi ñu jàll ci suuratul Ixlaas aywa aywa suuratul Ixlaas Thierno Kanté aca ñëw leen Mohamed Doumbouya Thierno Mawiyatu Sall Abdourahmane Keita Baye Baba Wade Abu ci leen ngeen dem kuy tata. macha allah macha allah. eh eh mooy âge nga xamante ni mooy xale yi am ñetti at. mooy ñi am 2 ans jàpp 3 ans ñoom ñoo leen doon jàngal léegi nii suratul Ikhlas. macha allah. Hussein demal fii aywa yéen yéen ñuy jàngal suratul naas suratul suratul allah macha allah ñoom ñoo nekkoon xale waa petite section aywa léegi ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy defal hadis bi amaat ñëwal aywa Yacine Bari ñëwal Mohamed Diallo Mamadou Bari Mohamed Ndiaye yen leen ayca yéen a ñuy waxal hadis bi wax si wàllu si wàllu set aywa bravo wax leen ci kaw ma dégg xaala rasulullahi lakum jàngal ngeen ñu xadis bu am solo ki taalew de o barkeereena poussins bravo bravo les poussins seen islaam ñoom ñoo nekk ñi dañu war a tari suratul maun aywa dama bëgg nag ngeen waxal ma suratul maun ci kaw parce que xam naa ni seen parents yi ñoom mokkaluñ ko léegi nag dama bëgg ngeen wan leen ni leen yéen ay jàngkat ngeen dégg ngeen ku wax ci kaw rek su paree cadeau mu koy xaar si suuf est ce dégg ngeen ma aywa aouzu billahi déedéet maa bañ ma bañ da di wax ci kaw wala ma wàccaat léegi Bachir ani ngaw nag Bachir li ngay def ci kalaas bi wane ko fii ah Bachir ba tey fooru wax leen ci kaw déglu leen tata suuratul maun ah waaw macha allah shukran lakum macha allah yéen yéen ñu doon tari suratul maun macha allah aca waaye xel day dal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne doomu aadama bu fekkee dafa génn àdduna compteuru tiyaabam yépp dafay tëj ba mu des ñett ñett yooyu mooy doom joo xam ne yar na ko jàngal ko doom jooju di ko ñaanal kon ñun suñu xel dal na bi ñu amee doom yoo xam ne gëm nañ ne bu fi jógee yàlla yéex dinañ ñu ñaanal kon lépp lu ñu doon def rekk nan ko yokk

Mola eh, Afrique. Amazones. Applaudissez fort les Amazones. Bravo les Amazones de la moyenne section. Bravo. seen tari bi macha allah wàcc leen ndànk ngeen dem toog takbir nga ca xarfu ya yonen neena la bas bu mujj ba gaañi wattu téere bi seen kër ya kaawe na kem tan ya baari na ko ma yiw ashurum ca xarfu ya yàlla naan la jàngal jëm ca kaw say aaya yi mujju mooy sa kër sa janna ja xur kem tan ya baari na jàngu ko mang yu ashurun ca xarfu ya téere bi bawul dara jàngu ko xam dara mooy suñu saafara ñu nak moom ba kaw sara Qur'aan kem tan ya na jàngu ko mang ca xarfu ya yàlla naan la jàngal jëm ca kaw say aaye yi mujj mooy sa kër sa bu fekk Quel savez-vous de notre pays? Mon pays, mon pays s'appelle le Sénégal. Sa capitale est Dakar. Le drapeau a trois couleurs, vert, jaune, rouge, avec une étoile verte au milieu de la couleur jaune. Masha Allah.

réew Sénégal sama réew Sénégal bul xeeb danga juum ñun ñëpp bokk maam Adamay suñu maam ku la mag def ko ko magit def ko sa morom nang ko wek li de mooy Sénégal Sénégal sama réew Sénégal sama kunan la bul ma bul ko gaañ ku la gaañ bul ko nan yaa ma gaañ doxal di ko baal fonkal sa dëkkandoo fonkal sa àndandoo bul wor sa àndandoo wor baaxul Sénégal Sénégal sama réew oh Sénégal alquraanul karim azim macha allah. ko sàmm te mu ko xam loxo càmmooy de aada saa sopp ko waxuma la islam loxo càmmooy kenn du ko naane kenn du ko lekke xanaa jàngoo xadiis ba si lekkee loxo càmmooy xaarala sëra naam bismiti tay bismiti dootuma lekk loo xam mu yand kal ñaami taajum macha allah wuri nee na bis ni ki tey loxo càmmañ eh ande kadi mi ñaami taajingo nanu ah pël fotay macha allah aca wàcc leen dem الله إمام المرسلين حبيب الله yow yaay gan gi mbindéef إمام المرسلين حبيب الله yow yaay gan minde xuluquhul qur'an ay waxam doon kemtaan moo ñu indil bayaan jubal rasulallah imam al habiballah yow yaay gan gi mindeef ku la roy ku la roy moo gën a jub ahmad ku la moy moo sax ci reen yàlla ne toppu leen yoonen ma soppu leen rasulallah إمام المرسلين حبيب الله yow yaay gan gi mindeef su ma lay way di jooy su ma lay way di jooy yama gënal sama yaay gënal ma sama baay yow rek yaay sama waay rasulallah إمام المرسلين حبيب الله yow yaay gan gi minde ancambal ko kanangu doon ana jango kasi wasiton ala la sala la e sallallahu alaihi wasallam soñoyonente soñoyonente الظلم ظلمات يوم قيامة طن أي لندم ليدن بس يوما الدرج والستار الدرج والستار واو واو man kañ doo man kañ man kañ dootuma tooñat okay bal ma ak balal balal bon c'est de la grande section euh, groupe bi ñoom ñooy présenté wu pour leen les nombres et les lettres je m'appelle je m'appelle Je m'appelle Aïssa Toubaré. Je m'appelle Maman Dialissou. Je m'appelle Nyanya Aïcha Mbaye. Je m'appelle Kadia Wade. Je m'appelle Cheikh Oumar Foutiyou. Je m'appelle Mamadou Aliou Ba. Je m'appelle Mamadou Salih. Je m'appelle je m'appelle Boubacar Ba. paire pour écrire le nombre 1, je fais un trait vertical, un gauche et un trait Africa et un demi ouvert à droite. Pour écrire la lettre, le nombre 3 et la lettre E et la lettre I. Pour écrire le nombre 3, je veux deux demi-ronds à gauche. Pour écrire la lettre E, je vais un demi ouvert à droite, un crochet en haut pour équilibrer la lettre Je fais une canne renversée, un trait oblique, un pion en haut. J'ai écrit le mot papa et le nombre pour leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci ne sa tur ak sa di leen masawu coono ci déplacement yi ñu ciy def ci salle bële lañ ko programme pour def ko indi naa sax sama machine vidéo projecteur pour ñu projeté ko mais fii en plein air def ko fi day xaw a doy waar parce que vidéo projecteur dafa ànd ak ab gis te fii les conditions ne sont pas réunies pour faire ça alors euh, le thème oustaz wax na ko léegi mi ngi porté wu ci taxawaayu parents ci seen njàngum doom ci français muy le suivi scolaire par les parents d'élèves dans alors plan bi lii la ñu ko def ci juróomi ponk ginnaaw buñ ubbee ak introduction bi dañ dañuy ubbee dana am premier point boo xam si mi ngi wax la contribution des parents dans l' amélioration de la vie scolaire de leurs enfants maanaam parent yi seen wàll ci euh, seen njàngin doom yi nan leen ko mën a yokkee deuxième point bi mooy responsabilité parentale et réussite scolaire des enfants parents yi lan mooy seen wàll ci euh, réussite parents yi troisième point bi lan mooy seen wal ci échec bi tamit maanaam élève bu échoué réussir lum njàngam parent bi am na ci responsabilité comme ni ko ni mu amee responsabilité ci bu réussir ñeenteel ponk bi mooy responsabilité enfant bi moom it ci réussir am ci réussitam juróomi point juróomeel ponk bi mooy motivation des enfants en famille et son influence sur le travail scolaire maanaam xale yi bu ñuy jàng day am lu leen di pousser lu leen di ñaax loo xam si day ñëw ba feeñ ci biir école ba te loolu ma ngay commencé ci biir njaboot gi voilà loolu mooy point yi nga xam si moom la ñu évoqué kon bisimilah mën nañoo commencé jublu ci mbir mi alors le suivi scolaire par les parents d'élèves dans l'éducation euh, dafa am loi d'orientation du système éducatif parce que loo gis lu ne dafa am ay loi ak règlement yoo moo ko tënk njàngum Sénégal nag dafa tënk ci loi 91 22 du 30 janvier 1991 loi bi ni l'éducation est définie comme une priorité nationale qui vise le développement des capacités intellectuelles, physiques et morales, l'amélioration de la formation en vue d'une insertion sociale et professionnelle et le plein exercice de la citoyenneté. ma tekk ko ci wolof parce que xam naa ne du ñëpp a dégg tubaab loi bi daf nii dafa jël éducation tënk ko. ci ni mu ko tënkee mooy ay priorité maanaam loo xam si lu soxal nguur goo gis jàng day loolu mooy première priorité moom la njëkk a teg ci kanam parce que boo jàngul ban formé la ban façon nit nga boo xam suñ réew fu mu jëm moo tax éducation réew mi ngi basé wu ci suñu ratee éducation bi réew moom ci nax saay la jëm moo tax lu am solo la lu war a xoolaat moom bañ dem ba jënd ab loi pour définir loolu léegi nag priorité boobu dafay basé wu ci développer nit ki nit ki dañ koy suuxat ci wàllum xel intellectuellement ci wàllu physique lu tax ñuy def éducation physique yooyu ci école foofu lay dugg moralement aussi maanaam dañ koy jàngal ay habitudes yu baax comportement les bonnes bu buñ ko formee nag ba nga xam ne matale na yooyu yëpp pour lan la pour bu ëllëgee ci ba tey ci biir formation boobu dañ koy jàngalale métier maanaam mën nañ ko orienté ba lu mu bëgg a def ci àddina man na koo def ñi bëgg a def journalisme mën nañ koo def ñi bëgg a def animation culturelle wala religieuse mën nañ ko def ku bëgg a def euh, formation professionnelle maanaam euh, soit enseignant euh, wala les métiers professionnels yi ngeen gis menuiserie yëpp am na ay école yoo xam si mi ngi fii moo tax wàll bi dafa yaatu bi ci primaire kese la commencé commencé na depuis préscolaire mooy ñi ngeen gis fii léegi petite section moyenne section ba grande section dañu commencé foofa la ñu ñuy màgg ak moom étape bu ci nekk ak programme bal fa nekk ba keroog ñuy nekk mag boo war a toll di mën a am liggéey alors cette éducation qu'elle soit formel informel ou non formelle elle a pour principaux objectifs la socialisation et la formation de l'enfant éducation boobu nag njàng moom comme ñu def ko ci formation euh, formelle maanaam yoo xam si dafa am école yoo xam si publique la wala privé yoo xam dañu am ci benn local bu ñu leen dugal wala mu ne informel parce que mën nañoo jànge neneen fu dul ci école jàng ci biir kër ga sax jàng la wala am na ñoo xam si dañ dañ leen di dajale ci mbedd mi di leen jàngal lu mel ni daara yi am na ca donc maître daara yi nga xam ne dañu ubbi seen ci koñ ba ab place xale yi di fa ñëw di fa jàng ñoo ñu ñi nga def éducation c'est que c'est pas formel état bi jël ko en compte ci programme commencé na sax di ko jël léegi avec la modernisation des daara kon loolu aussi ci la bokk léegi objectif yi mu am mooy lan euh, nit ki dañ koy niteel maanaam mu mën a nekk en société socialisation nan lañ mën a defee xale bi ba buñ ko tàggatee teg ko ci société bi mu mën a ànd ak ay moroomam société bi jëm ci kanam parce que ku beru rek boo ko tóo la preuve bu yàlla tàggalee bu yàlla tàggalee sa xel ba amul nekkatoo sa xel dañ lay marginaliser yow boo ko tóo dañ lay romb ci mbedd mi ngay def naka suñu kenn du la kenn du la suuraale léegi nag xale bi nag euh, loolu dañ koy daw ci société bi société bi ñëpp war a ànd lëkkalikoo kenn ku ci ne soxla nga sa moroom ci fànn bu ne parce que kenn ku ci ne boo matale woon yëpp kon relation yooyu du fi am kenn ku ci ne daa am lu la yàlla jox xañ la leen li lenn mu jox ko sa moroom nga xam sa moroom ca ngay mën a dem jële ji ko fa bu boobaa société bi man uude bay uude dal su fi newuloon ñun duñ sol dal bay ñëw di jàngale si ainsi de suite kay defar lekk ba noonu kay defar classé maçon yaag ñoom ñëpp ba ci tailleur yi parce que tay tailleur ba amuloon duñ sol boobu koy ñëw naan dañ jàngi ce qui fait que mooy ce qu'on appelle la division du travail liggéey bi moom moo mel noonu dañ koo diviser ku ne ku nekk sa pàcc mais foog am ñu ko lënkale pour mën a vivre en société ci loolu la formation bi basé donc nos enfants sont les êtres euh, que nous chérissons les plus chers que nous aimons le plus et notre responsabilité de xale ñun moo gën a cher ci ñun parents yi li gën a cher ci ñoom lañ jox enseignants yi pour ñu former leen donc ce qui fait que bi gis ngeen maçon maçon bi ciment lay liggéey suuf ak ciment loolu mooy matière am enseignant bi matière am xale la te xale parent moom la am lu gën a cher ci moom lu jóge ci moom bëgg mu nekk ëllëg place parent bi mu dégg ko enseignant bi kon kenn ku ci ne am nga sa responsabilité parents yi li gën a cher ci ñoom lan leen dénk kon da ngeen xam ni li leen dénk nan ngeen ko mën a tabaxe ko du ngeen defee waar baaraay li doon yaakaar sax ngeen am lu kawe seen jot en effet le de des parents essentiel voilà dans la développement de la personnalité de l'enfant et comme l'a souligné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dégg nga nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na euh, waajur la muy joué ci xale ci doomam dafa am solo day rôle bu am solo lool lool ba ñi nga jëlee ci xadis bi ñu ngi jógee ci Bukhari après xam naa oustaz mën na koo tekki ci ci ci arab mais en français dañuy tout enfant né solo la nature saine et originelle ce sont ensuite ses parents qui en font en juif un chrétien ou un mazdéen dañ xale bi xale bu judd bu ne da nga ci sel ak wér am sa originalité maanaam dara nekk gul ci yow parents yi nag après ñooy def ki ngay doon yow ëllëg soit mën nga nekk chrétien mën nga nekk juif mën nga nekk julit mais kooku li koy def ci yow mooy ci parents yi parce que ba ñuy juddu liir buñ juddoo buñ xamul parents yi mënoo xam ne kii chrétien la wala juif mais bu parents yi teewee dañu xam ne ah kii kat chrétien la que parents yi chrétien la donc li nekk ci ñun ñun suñuy parents ko def ci ñun muy ku nekk julit parents yaa ko ci def ku nekk chrétien parents yaa ko ci def ku gëmul yàlla sax parents yaa ko parce que tamit dafa juddoo ci milieu boo xam ñooñu gëmuñu yàlla duñ wax xale bi kuy yàlla donc kon ñun lu ñu nekk suñuy parent la xam naa oustaz peut-être man na dellu si ci xadis boobu voilà l' premier de la déclaration universelle des droits de l'homme wax na lu mel noonu lu méngoog loolu daf ni tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit dañu ñëpp ah, bi ñuy juddoo ñoo yem ci ay droit tolloo leen maanaam kenn ëppalul sa morom lenn ils sont doués de raison et de conscience am nañu xel yàlla def na ci ñoom xel ñooy xalaat di xel li di agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité xam aussi nañ nañuy jëflante ak seen i moroom article 26 ba ci même loi bi mu ni toute personne a droit à l'éducation képp xale rek muy mag ak xale yépp rek da am droit ci éducation maanaam da ngaa war a def éducation da ngaa war a jàng muy mag ak di ndawat ak l'éducation doit être gratuite loolu buñ ko waxee bu fekkoon état bi matale na ko yëpp njàng bi ubbil na ko pour ñëpp ñu yem gratuitement mooy école publique bi mais teewul tamit nag ubbi nañ am yoon pour ku bëgg privé tamit nga ubbi privé au moins ce qui concerne l' enseignement élémentaire et fondamental mooy li commencé préscolaire ba troisième o Sénégal l' enseignement est gratuit ba ci sax secondaire ba université mais am na contribution yu ndaw yu parents yi contribuer l'enseignement technique professionnel aussi dañ dañ koy généraliser parce que képp ku bëgg a orienté juma ju wàllum liggéey bi nga dem liggéey l'accès aux études supérieures université bi nañ ko ñëpp tolloole ñëpp ci ay droits ak ci selon les mérites l'éducation doit viser le plein euh, plein euh, épanouissement de la personnalité humaine bu ne jàng xale bi du dañ koy maanaam tënk ci njàng kese mais dañuy tenir compte tamit ci li mu bëgg lu méngóog moom maanaam xale bu ne bu dee préscolaire dañuy soxla di fo di jàng en temps mais fo bi tamit lu muy gën di màgg fo bi gën a dem yoonam boobaa ñu koy dugal nag véritablement ci biir formation donc kon su ngeen gisee seen doom ci préscolaire ñuy way ñuy fecc ak ñi yenn saa ñu dugal ci ay hadis ak alxuraan ñu koy jàng boobu leen metti parce que njàng moo tëddee noonu xale bu ne xale dafay soxla di fo bu ngeen duggee école préscolaire gis ngeen fa ay toboggan ay ay fowukaay yooyu yëpp day ànd ak ñoom parce que moom lañ méngool mais xale bi muy gën a màgg gen gis forme bi orienté ci beneen sens muy commencé. ma bëgg a déparé ci waxu benn philosophe bu wax ñetti baat yu am solo mu ne nit ki bu fekkente ne. dafa bugg investir lu mu dundee ci ñetti weer ak ñeenti weer mën naa jëf mën naa dem bay ceeb wala dugub bu bugg investir loo dundee ci ñetti weer ak ñeenti weer mën ngaa dem bay ceeb ak dugub mais ku bugg investir loo xam ne da koy dundee ñaar fukki at fanweeru at dem ci juróom fukki at. nee na demal investir ci euh, jàmbat ay ay garab garab yi taxaw ni ci biir tool bii ñu ne am na yoo xam ne man fi ñaar fi at mu wax ne nag ku bëgg a investir loo xam ne dem koy dundee ci sa giirub dund demal investir ci xale ku bëgg a loo xam ne danga koy dundee sa giiru dund te man nga investir sa alal ci xale rawatina njaboot bi nga xam ne ñoom la jur euh, mbokk yi yàlla def noo jàngal valeuru xale ci alquran ci façon boo xam ne amoo amul benn téere booy ubbi gis yitte bi yàlla jox xale amul benn téere bu ko jox xale yàlla daa yitte xale lu jiitu xale di jur moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour préparer xale mu ne demal tànn yaay bu baax pour préparer xale sa doom doom bu baax dañ koy préparé ci tànnal ko yaay bu baax ak baay bu baax moo tax ki nga xam ne daa bëgg a investir ci njabootam yàlla subhanahu wa taala mu ngi def projet boobu na ko déparé ci yow bu góor gi yow baay na nga ko déparé bi islaahi defar sa bopp parce que yow mii góor boo baaxut la ngay meññ mën naa bañ a baax. góor bu baaxul la muy meññ mën naa bañ a baax loolu moo tax pour nga am lu baax yow da defar sa bopp ba pare muy benn ñaareel ba nga wuti soxna soo xam ne moom tamit dañ koo préparé préparation bu baax boo tamit tur kawul mar ak li arba soxna dañ koy takkee ci ñeent mu dem ba ci ñeenteel ba mu ne mooy diina mu ne tànnal borom diina yàlla subhaanahu dafa am barke yoo xam ne dafay feeñ ci doom ak réussite yuy feeñ ci doom yéen yi dafay jóge ci wàllu wiraasa mooy ndonneel lay doon way jur bu baax way jur bu góor bu baax ak way jur bu jigéen bu baax dañuy séntu ci ñaari way jur yooyu ñu mel ni lu leen gën a baax te loolu dafa am ci logique bu alquran inna allah astafa adama wa nuuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alamin yàlla dama ne ñeenti ñi dama leen tànn dafa ne nuux ak ibrahim ak njabootam moom ne ibrahim rek ibrahim ak njabootam mu ne ali ak imran ak njabootam lu tax parce que garab bu baax bu barte bu ne lu baax lu barke rek lay meññ bon dafa bokk ci akku xale numéro un xale bi ñu tànnal ko yaay bu baax tànnal ko baay bu baax muy benn ñaareel ba yàlla subhaanahu wa taala ñoo jàngal ci alquran ci yaayu Mariama ba mu nekkee en état yaay war a yëkkati ay loxoom jëme ko ci yàlla ñaanal biir bi nga xam ne xale bi nga xam ne moo nekk ci biiram wa is qaalat imraatu imraana rabbi inni nazartu laka maa fi batni muharraran fa taqabbal minni innaka anta samiu alim ñaan dafa baax bari na boo gis ci doom man na nekk ñaanu way jur la kon dañuy xaar ci way jur ñu faral di ñaanal seen njaboot rawatina ba xale bi nekkee ci biir juddoogut ngay ñaan yàlla yàlla muccal ko mu juru ci jàmm yaru ci jàmm yàlla muccal ko ci seytaane gis nga Ibrahim alayhi salaatu wa salaam dem na bi am téeméeru at ak tukki at te yàlla ma ni waaye ba mu ñaan yàlla jiwat dafa ne rabbi habli min as-saalihiin yàlla may ma njaboot mais na nekk ñu baax te Ibrahim amagul lenn ci njaboot mais gis nga ñaan bu barke boobu dana feeñi ci doomam ba Ismaïl nga ne ci njabootu Ismaïl ci la Muhammad sallallahu alayhi wa ci njabootam ci la Ishaqa bokk Ishaqa boo xamante ne ñu ëpp ci yonente yàlla yónni ci alquran ci bari Israël ci njabootam lañ jóge bon bu nga déparé ca ñaan kazalik ñu gis euh, Mariam alay yaayu Mariam muy xon na keroog bi Mariam juddoo mu am déception parce que yaayu Mariam bi mu nekkee en état boobu échographie amagut parce que jamono tey sax jigéen bu demee ba am weer ci omb rek mën nañ xam la muy am mais Mariama dafa mosoon di xalaat ne góor la ko yàlla di may waaye ba mu yàlla mayee doom mu gis ne jigéen la ko yàlla may moom yaayu Mariama dafa am déception bi maanaam yaakaar bu des mu ne rabbi inni wadatuha unsa yàlla góor jigéen nga ma jox wa laysa zakaru kal unsa ki xam nga ne li góor man jigéen manu ko lu yàlla wax wallahu alamu bi ma wadaat dama laa jox mais li ma la jox xamoo li mu doon tiyel rek nga nañ taxaw fa gis nga xale yu ndaw yii nga xam ne ñu ngi jardin fi mu nekk ni xale boobu yàlla bu koy méngale ci alquran ak jiw ak jiw tey boo mango nga téye bu nekk jardin nga boobu ak xale bi benn lañu lan moo leen boole numéro un xoxu mango bi mënoo fa mënoo fexe nga gis fan la place bi nekk ci xoxu moomu du noo ko gis munoo gis couleur mango bi ci xoxu mango bi ba mu nekk xox kasaalik takk mango bi munoo ko gis ci xox bi mais pourtant lépp a ngi ci biir gis nga xale noonu la ko yàlla def xale bu juddoo doo gis ci xale bi lenn luy wane avenir xale bi xamoo ndax kii la xelam di toll xam nga ay diplôme am feeñul ci xale bi. farti xale bi feeñagul ci xale bi njabootu xale bi feeñagul ci xale bi buubu gàcce bi nga xam ne xale bi dina ko fat ci àdduna feeñagul ci xale bi xale bi waliyu yàlla lay doon wala du doon waliyu yàlla feeñagul ci xale bi xale bi autorité lay doon wala nekkagul autorité feeñagul ci xale bi mais pourtant mu ngi fi loolu yëpp ñu ngi ci xale bi ñu mënul ko gis ci xale bi loolu moo tax alquran wax ne wallahu a'lam bima wadaat yàlla moo xam lim la jox parce que xale bi dafa indi mission bu ma tëj mais yow yaay li xale bi ci ay xeewal xamagoo moom la oustaz doon jàng léegi ci xaalis bi ci loxo ma min mawludin illa wa ala fitra mën na ndegee tafsir bi mooy xale bi yàlla bind mooy xale bi yàlla montal na ay appareils les capacités mi ànd capacité yëpp bu nit di am pour réussir ci àdduna àllaaxira yàlla def na ko ci xale bi léegi nag mu des xale boobu mën na continuer baax mën na tamit yàqu waaye saa su yàqoo rek yàlla ne yow mooy jur yàlla yaa ma yàqal xale bi mais yàlla ba mu lay jox xale bi yàlla nit ku baax la la jox nit ku mot la la jox nit ku barke la la jox nit koo xam ne mën na defar àdduna ak àllaaxira la la jox. ne jàggante waajur mën na tax xale boobu fii ba ñaar fukki at xale bi mel noo xamante ne ku ko gis rek ne cam dama faral di wax ne man école privée laa yor CI ba terminal ñi ëpp ñi intervenir ci sonn ci seen i njaboot mooy jigéen ñi ñi ëpp ah defe naa sax loolu la wane ñii ëpp ñii sonn ci xale yi mooy jigéen ñi li tax loolu yomb na gis nga xale bi tey ba muy jàng CI yaayam mooy gën a sonn ci bic ak kaye ak dem école dàq nañ ko wala dàqum ko xool composition yi di dem di dem di xool maître bi di xool directeur bi yaay yi ñoo ci gën a sonn am na yaay yoo xam ne ñoom ñooy fay scolarité seen i doom xam nga li tax parce saay su xale bi boree rek ñu ne. yaay balu waaye nag saa su xale bi baaxee paa bi ñëw na c'est mon fils su xale bi baaxee rek paa bi ñëw tamit c'est mon fils ci sama doom la mais su xale bi mënee ñu askanalee ko yaayam loolu moo tax yaayu sonn mais nag loolu du hasard xale bii nga xamee mooy sunu doom yi nekk CI wala nekk jardin. ñun xam nañu ne yaay mooy ma wu yàlla bi nga xamante ne yonent yi ak président yi ak autorité yi sunu yaay yi ñoo loolu moo tax yaay sonn ci doomam léeg-léeg dañuy gis xale boo xam ne dana mel ba ko ñëpp bàyyi ko ñëpp sànni ko mais boo fekk yaayam mu ngay sonn ci xale ba du mus a découragé pour xale toppatoo xale daa am solo bu ko defee wax naa ne gis nga xale moom ak xoxu mango ñoo yem xoxu mango boo ko xaroon doo gis doo gis euh, nu mu doo gis bant doo gis euh, nu mu tudd fooy yi ko ci gis doo gis meññeenteef doo gis tax mais dafa ngi ci biir pourtant te saa la xale bi mel. xale bi lépp ngi ci biiram mais dafa sa dafa soxla environnement maanaam espace bi ñu koy yar pour capacité yooyu yàlla def ci moom capacité yooyu mën a màgg comme ni xox-xox bi soxla ñu ñu ko ci suuf su suuf bu ñu engrais arrosé ko ba pare toppatoo ko pour mu mën a sax mu war a saxe loolu mooy école bi loolu mooy parent bi loolu mooy famille bi muy juddoo loolu mooy euh, environnement bi nga xam ci la xale bi di évoluer loolu mooy programme bu école bi loolu mooy li nga mooy ndox bi nga xam ne mooy génne compétence yi nga yàlla def ci xale bi bon yàlla subhanahu wa taala wax nu ci ab aya waddu ahadukum an takuna lahu janna gis nga suñu doom yi mooy suñu ajana suñu doom yi mooy sa ajana ëllëg xool ay fu mu fu mu jëlee wa asaabahul kibar bés a ngi ñëw ñee ñun ñi toog ay paa yu la ñuy doon béy caaw dootu mën a xëy dootu mën a bokk gis nga li ñuy def ci suñu njaboot bii suñu njaboot boobu ñooy mujjee ñëw jàpp ci suñuy loxo di yóbbu hôpital di yóbbu ca kër di togg di root di passé di ñu yóbbu di ñu ngenteel di ñu indi yaa ngi li ngay def ni actuellement ci xale yi nekk CI. boo bëggee xale yi loolu la ñuy delloo ci yow voilà retour d' investissement bii ma am naa tey yaa ngi lebal xale yoo xam boo demee ba amatoo doole loolu nga lebaloon xale yi xale yi ñoo la koy fay ñaata yoon la ñu gis xale boo xam ne mu ngi jur ci famille boo xam ne yaayam daamu sa sonn papam daamu sa sonn ci location lay mu sa dëkk waaye baay ba di sonn yaay ba di sonn ñu dugal école di muñ xale boobu dem ba njàng ba njàng mat xale boobu ñëw jënd benn kër ne bàyyi kaay dugg ci kër gi yokk sama yaay ñaata yoon la fi am. ñaata yoon lañu gis xale boo xam ne moo jëli yaayam ak boppam dogal leen bii yóbbu leen arabu saudi ñu def aji wala ñu omra ji mais yaay bi mu investir loolu ci doom bi démb ak barki démb boo sagganee say doom nag ba investiroo ci ñoom sonnoo ci ñoom bu subaa doom yi nga xam ne seen bàyyi dañoo investir ci ñoom bu ñuy yóbbu seen papa yi makka. di leen di daggal ay buumu gàcce bu boobaa say doom yi taxawal ci mbedd bi parce que nag yow waajaloo woon seen njaboot. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. xam nga mi ngi wax moom inspecteur ne bàyyi leen seen doom yi ñuy wax seen xalaat Seydina Ibrahima alayhi salaam bi mu gisee gént gi. yàlla won ko ne dafa a rendi doom ja dafa ñëw laaj xale bi xalaatam xale bi ne ko pap delloo waat naa la kilifteef bi yëpp ndax tànnal nga ma yaay ju baax yar nga ma doo ma def doo ma loo xam ne daf may gaañ rabbi al ma tu'mar sa tajiduni insha allahu lu mu ci saas minas minas kon xale bu fekkee yaroo ko bu fekkee yaroo ko yeewoo ko yiiruloo ko man a wax yéen ngay jur yi jigéen ñi góor ñi moom damay jéggal ñoom ñëpp dund rek la ñuy lijjanti te du ñu yaru xale yi yéenay sonn ci lépp nee naa xiif mar ak coono bu ñu ñëwee ngir gane la ñàkk jikko bu bokk ci gan nga bañ leen ndax jàkk jikko fu mu ñëw de indaale teraanga sàcc wor triandé agressé yooyu yëpp mooy ñàkk valeur yooyu saa yuy ñëw de indaale loolu yaakaar ne teraanga la lu teew mën a déedéet yow yaay ngalaw xamteewul yar sa njaboot te bañ a sàgganee di leen yar xënteeroo yar sa njaboot bañ a sàgganee di leen teral ndax xale teraanga gi ñu koy def mooy nga yar ko jàngal ko bu fekkee yaroo ko ëllëg saa soo tolloo ni ñu la war a teral dañ lay toroxal ñaata doom ñooy dóor seen yaay seen yaay ñoo ñoo jël yat ba ràbb ko jox ko doom ji doom ji war ko tigu di leen dóor mooy yar seen doom luñ ko tànnaluñ ko ay xarit ñu muy àndal kon li ñuy def rek mooy ñi ci yoon bi ah ñi ci yoon bi dañu gën a góorgóorlu waaye góor ñi joxe scolarité baax na lool waaye di suivre xale yi di dem ci école xam ni ñu toogee loolu def ci baax trop ngir ñu mën a xam fan la xale bi amee ay faiblesse nga mun koo jàppale dañuy jox kii di madame Diop maa ngi moom mi nga xam ne moom la tuddee bés bi mu yëngati ay kàddoom di wax neexa di Camara tuddee gi mooy tuddee nee du hasard nee du hasard ay jëf la ak ay jikko ak ay taxawaay yoo xam ne bëgg na xale yi jàngee ko ci yow moo tax mu jël bés bi jagleel la ko kon loolu moom dañ ci sant yàlla rek ndax ci ay jikko lay xeet di rawee beneen xeet bu dul boobu kon incha allah dina jox kàddu gi. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. salaamaaleykum mbooloo mi. di nuyu en particulier yaayu xale yi parents d'élèves yi parce que bés bi moo tax ñoom ñoo tax ñoom. ñu indi seen doomu Zeyna di nuyu conférenciers yi honorable invité yi conférenciers yi ci wax lu rafet dañ ci di nuyu résultats yi di li may wax ci Khady laa koy jëmale man maa ngi tudd Marie Louise Sock man chrétienne laa catholique laa maa ngi tudd Marie Khady jël lu bësam bii tuddee ma ko lii mooy Sénégal oustaz léegi maa koy dégg muy wax euh, ma ne kii Anna Anna mi nga xam ne dafa toog ba mag amul doom ñaan yàlla doom dafa ne doomu góor lay am yàlla may ko doomu jigéen parce que dafa ñaan yàlla ne ko dama nga may ma doom boo xam ne liggéey bi ko woon def def ca temple ba ca mosquée mu koy def di bale di nettoyé di kii mu ànd defoon ne ne doomu góor lañ koy may mais ñu jox ko doomu jigéen doomu jigéen boobu yàlla def lu bari ci moom doom boobu mooy mari mi ñuy wax tey yaay yéegi yàlla def tey mu ñëw taxaw ci tudd mari loolu loo gis ci àddina du hasard xale dama koy wax gudd gudd dama koy ñaanal yàlla parce que dafa nekk xale xale bu takk sëlu sëlu xale bu am ittee xale bu neex a bool école bi xam naa ko lu bare parce que lokk yi ñun ñoo leen ko loué mais damay ñëw ñu jàppante ay difficulté ma ne àddina noonu la lépp du tey suba sotti mais yow gis naa ne am nga Pastef gis naa éducation yi ngay jox xale yi gis naa discipline yi ngay jox xale yi ma ne ko xale yow sa école rek ngay ñëw xale yi ñu la fël man nga yenn école yi xale yi bu ñu génnee da ngay ne xajal ñu lay fël mais yow sa école xale bu nekk day toog parent d'élève ba ñu jël ko ñu génn di ñëw si école bi ba génn ko doo xam sax ne école la tellement am na discipline espèce yi ñoo wane ni fii tey loolu law am ci école xale nag maa ngi koy ñaanal am di law law law law law law ba mu dem terminal bu mu am élève yu terminal yu am bac arabe am bac français di ko ñaanal am école yi boppam yu mag a mag a mag ba yàlla génne fa ay imam yàlla génne fa ay ay président de la république du Sénégal pourquoi pas di gërëm di gërëm surtout jëkkëram monsieur Camara parce que aussi jàppale ne ko bu egsee bu fii monsieur Camara moo tax man nag maa ngi yem fii bëgguma monopoliser parole bi parce que dafa am yeneen yu ñuy def merci beaucoup jërëjëf li ñu waxoon mooy lii rek jikko dañuy nawee nit waaye du alal ndax lii boo ko doon jënd di nga génnee alal ju bare bare bare bu tax nga mun koo am kon jëflante bu rafet mooy tax dund gu am ci àdduna bi fépp fu nit ñu nekk am jàmm rek mooy relation bi nga xam ne moo dox seen diggante moom la ñu encadré kenn ku ne jël àqam bàyyi keneen ak àqam waaye moom kàddu bi rafet na ndax ñun daanaka est ce que ñun li ñu tuddee Mariam ñun tuddee ngeen ko ñun tuddee ko nga leen gën a bëri li ñu tuddee Mariam ma allah rabbi macha allah kon ñu yeggali waa. aywa waa Koraan ñooy ñëw ñi nga xam ne ñoo jàng alquranul karim. suuratul Macky Macky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 ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين أما ذمة مشاء بنميم مناع للخير معتد أصيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخلدون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسمنا بهم النار ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مسبحين أن يعودوا على أنفسكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم حدث إنه لحدث العظيم mbir mu rëy xew na fi mbir mu kéemaane xew na fi suñu yàlla yi fay na suñu yàlla yi musul fay mbir mu rëy xew na fi yéen mbindeef yi dëgg juddu na leer feeña dëgg boobu fu mu juddoo ak nu mu tudd dëgg boobu mi ngi juddoo ca Makka mi ngi tudd Muhammad doomu Abdallah ak Aminatu bintu Wahbin xale boobu ba mu amee juróom benn at la ànd ak yaayam dem seeti ay nijaayam ca Madina ba muy dellu si Makka yaayu xale bi feebar na ba mu mujjee faatu ci bërëb yu ñuy naan abuwaa ginnaaw loolu delloo neen xale bi maamam Abdul Mutalib ak bay doxam ñu yar ko jàngal ko métier commerce ba mu amee ñeent fukki at yàlla yónni na ko ci mbindeef yi ngir mu woo leen jaamu yàlla ginnaaw lool ay mbokkam sonal nañ ko bunduxatal ko ba génnee ko màkka mu gàddaay e dem Medine ànd ak xaritam buñ naan waa Madina teeru ko sargal ko di ko wayal way bu ñu way bu ñu naan tala alayna min shaniyatil wada wajaba

xare na xare yu bari bokk na ci xare Badr xare Uhud xare Hunay ngir yëkkati kàddu laa ilaha illa allah ba mu amee juróom benn fukki ñaar ak ñett si la dellu màkka def ajam bu mujj wàccu dénkaane bi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diina tey jii laay yokk seen diine tey jii laa yokk seeni xéewal ba pare gërëmalal leen islaam muy seen diine Mohamed toogal tuma fàtte ahmada zikra xufi qalbi lastu ansha ahmada Abu Talib l'adoptera à l'âge de 8 ans. Il fait son premier grand voyage à l'âge de 13 ans. Il, il, il où rencontre grand prêtre Bahira. Il se mariera à l'âge de 25 ans avec la noble et généreuse Khadija. Lancetibir la Paris à l'âge de 40 ans pendant, pendant qu'il méditait sur, sur le descendent les premiers versets et du noble Coran. En l'an 622, il fera l'égide avec les musulmans de la Mecque vers Médine. Cette date marquera le début du calendrier musulman. sama xol bi dootuma fàtte Ahmada شاء أحمدا ناكو sama xol bi dootuma fàtte ahmada zikurahu fi qalbi lastu anshaa imaam dafa mel ni gars yi dañuy xiif de e Ndeye Khady fan laa ñuy toll seeda xool leen añ yaa ngi xool leen gis ngeen waaw xale yi nañu bar xale yi ñoom añ nañ ba pare moom na seen xel daal Assane Camara añ yi añ yëkkati leen ko maire yi gis ko ay jàmbaar lañ lool ayo waa groupe lan groupe lan ah,

est une maladie causée par un moustique appelé l'anopheles femelle. F-Marie-Fève va une fois bouffer et des maux de tête. Pour éviter le paludisme, il faut dormir sous une moustiquaire imprégnée. yéen sunu waajore nanu ànd fagaru xeex si beru Ça, c'est le groupe B. Euh, le groupe B parle sur le, euh, le code de la route. Allez-y. Prenez les places. Ils vont commencer par là. Maintenant, vous allez marcher. la feuille. Euh, chez moi, elle fait chaud de Quand elle est avec toi, voilà, qui qui Qu'est-ce qui se passe? Regarde le feu. Regarde le feu. Le vert. Si le feu est vert, tu attends, les voitures passent. Si le feu est rouge, tu passes, les voitures s'arrêtent. Tu tu regardes à gauche et à droite, et devant toi, sur le pas du bas, tu, tu passes. ndeysaan fan yii dama demoon benn couverture médiatique daara yi mooy école primaire yi li ciy faatu ak li ci am ay handicap te li koy waral mooy les usagers de la route duñu respecter passage clouté yi duñu respecter stop yi duñu respecter feu rouge yi ñu ne doy na élèves yi nga xam ne ñooy avenir ëllëg bu fekkee da leen di faat weer wu nekk juróom weer wu nekk juróom balaa at mi jeex avenir senegal jeex kon ñu ngi leen di bàyyiloo xel yéen ñu yor permis yor ay oto yëpp ngeen bàyyi xel yooyu waaye ñu nit nañuy jéggi fi ñu war a jéggee senegal moo gën a naqaree dawal waaw moo gën a naqaree jéggi moo gën a naqaree dawal moo gën a naqaree mucc da ngay taxaw yor oto may xale buy jéggi benn scooter ñëw à droite daal di fay double wala mu jaar à gauche daal di fay double c'est comme ñooñu dañuy fiir mag yi sax waxuma la xale yi kon nañu gën a vigilant message bi am na solo trop kon ñu ngi ñaan yàlla mu aar ñu aaral ñu suñuy njaboot aywa. Ah, te maa ngi war a jëm fii génn dem réunion mais dangay waaru quoi c' est ah ouh c' est xaaral ma taala tànk yi sax man ah dégg yi jóge fii réunion yi fii par ci par là ba daal dëkk bi daal kenn xamul lan la daal ah. waaye yéen xanaa yéen. yëgu leen li xew ah waroon ngeen ko yëg de a ah, maaleykum salaam sama dëkkandoo yi ñëw nañu <laughs> bari ba na ngeen def kabara bàyyi ni nga am jàmm na ngeen def ak coono ah yéen ñi moom ma toog leen yéen de moom boo leen yéexoo tuuti doo la ma fi fekk yéen boo leen yéexoon tuuti doo leen ma fi fekk waaw bàyyi ni am jàmm na ngeen def ak lii la dëkkandoo di def dëkkandoo day nemmeeku dañuy seetante ci seen biir aleykum salaam ah soxna yi bàyyi ni am jàmm kamara Fall Diouf yegg si leen bismillah bismillah bismillah ah, gis ngeen de lii rek la dëkkandoo ji jariñ dëkkandoo day seetante di nemantante di seet ndax ka nga nekkal baa mu ci jàmm asalaamaaleykum waaleykum salaam papa maa dem football da Mohamed baa julli nga waa papa kon baax na Mohamed bu fa xeex <laughs> waa Diouf dimbali xale bi ki toll si heure ngay ne ndax julli nga wala julli woo déedéet Basiir Diouf wax na dëgg te loolu am na lu si yàlla wax baada auzu billahi min alsheytani irrajim وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى جاء دي Commande à ta famille la salade et fais-la avec persévérance. Nous, nous te demandons point de nourriture, c'est à nous de nourrir. La bonne fait est réservée à la piété. yàlla wax na ci sooratun Taaha naan digal leen seeni mbokk ñuy julli te ñu def ko ak dëggu ñun laaju ñu leen dara ci loo leen war a dundee lépp loo leen di dundee ñoo leen koy jox ba mu mat sëkk lenn rek leen sant mooy ngeen ragal yàlla wax na dëgg te nag yàlla suñ boroom yamul foofu rek baada audu billahi min alshaytan irrajim يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جاء Oh, vous qui avez cru, préservez vous-même et de vos familles. Dans vos dons, le combustible sera les ans et les pierres. Surveillez pas des gens rudes. Ne désobéissant jamais Allah, à ce leur commande, et faisant exactement à ce que ordonne. sax yàlla dellu di wax ci soratun taaha ay yéen ñi yàlla fexe leen a muccal seen bopp muccal seeni mbokk ci safara si nga xam ne li koy taal nekk na ay nit ak ay xeer te malaaka yi koy gàdde nekk na malaaka yi soxor te ñàng lool te duñ mës a bàyyi lenn lu leen yàlla digal lépp lu leen yàlla digal dañ koy def ni mu waree. eh jàmmaleen nit yi waay eh jàmmaleen nit waay ngeen nekk fii di ratatati rek di waratati rek di rañu eh jàmmaleen nit yi waay eh dimbaleen nit waay. maa sàmba moytul sa bopp ndax lépp lu yàlla digle kenn du ko foowee بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا qaala kadaalika atatka aayaatunaa fanasiitahaa a dit, quiconque se retourne de mon appel mènera une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais Allah lui dira, de même nos enseignements, tu étais venu et que tu les as oubliés. Ainsi aujourd'hui tu es oublié. yàlla dellu di wax ci soratun taaxaa naan ku bàyyi sama woote di nga dund dund bu metti te jourul yomal xiyaam dinañ la indi nga nekk ko xam ne dangay gumba te bu boobaa di nga ne ay sama boroom lu tax indi ma ma nekk koo xam ne dama gumba te ba ma nekkee ci àdduna dama daan gis te bu boobaa yàlla dina la ba nga nekkee ci àdduna nii la samay jàngale ñëwoon ci yow te danga ko daan fàtte fàttelu tey nag dinañ la fàtte ah, lii nag bu ñu yeboo ku ne ne alhamdulilahi alamin alhamdulilah ay kilifa bu ñu nekkee dañuy seetante tey jii ci biir seetante bi gis ngeen li fi juddu gis ngeen li lii yëpp ci xeetu yeete la ñii nga xamante ni suñu mbokk yi la ñoo bokk diine ji léeg-léeg nit dina fattu juum waaye dina leen comprendre dina xam ne ne ñoo bokk diine ji nit dina réer waaye bu réeree mën nañ koo delloo si waat loolu rek moo leen dal li ci def nag mooy ñu bàyyante ak te xam ne dëkkandoo dafay seetante soxna yi yéen ñii tamit jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yéen ñëpp ah nañu balante ak ñu ngi leen di bàyyeeg Seyda moom mi nga xam ne yàlla dogal na moo leen doon forme asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant. di leen baalu àq di leen baalu àq tamit bu baax. di delluwaat tamit di leen baalaatu àq tamit bu baax. si toogaay bu yàgg bi mais jubluwuñu ci dara lu dul defar lool rek lañ ci jublu mais na ngeen ñu baal àq bu baax ngeen xam ne dañoo buggoon ngeen gis seen doom yi liggéey yu ñuy liggéey ñu leen woon lépp nag leen na si luñ doon def foofu rek moom lañ leen indil ñu ngi ñaan ngeen baal ñu àq bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, macha allah macha allah macha allah naa bañ a génne léegi nag ci suba waxoon nañ leen ñi ngi jàngal xale yi ni ñuy aaroo ci ay ñaan waaye tekki yi nga xam ne asalaamaaleykum waaw xale yi nag dañu ñëwoon tey ah, doon leen woon ñoom li ñuy def ci école bi école bi ñu ngi jàng waaye tam ci biir école bi dafa amaat beneen école bu nekk ci biir école bi maanaam école art martial comme le taekwondo parce que bi ñu ko dugalee ci oto bi ci école bi yàggul noonu loolu waaw ci euh, ci milieu milieu euh, milieu milieu année bi dañu ko dugal boobu ba léegi xale yi ñu ngi entraîné tey jii nag boo leen gisee ñun taxaw nii solu ñu tenue sóoruñu woon indi tenue pour ñoom def euh, exhibition mais il faut ñu présenter tuuti ñu ne ñoom am na tuuti lu ñu xam ca nga ci 김치기 치위 아반 꽝이야 하나 둘셋 두번 꽝이야 하나 둘셋 세번 꽝이야 하나 둘둘 바로 자려 네 쉬어 ok tàccu leen xale yi waaye tàccu leen xale yi encore ate ñëw leen kaa leen nii ñëw leen nii ase ñëw leen fi mu nekk duñ mën a yëkkati tànk jipp yi ñoo tax ca kaa leen nii ase ñëw leen ñëw leen ñëw leen nii ñëw leen nii ñëw leen ci gannaaw ñëw leen nii ci gannaaw ñëw leen ci gannaaw yéen avancé cayo ña cumbi yan bu leen yëkkati dégg nga pacaki cumbi 앞부러치기 하나 둘셋 바라바스 하나 둘셋 바라바스 바로 달려 하나 reculer un peu reculer reculer reculer reculer 갑자기 준비 한봉 들기 앞자기 이런 압돌 이런 압돌류 돌려짜기 뜸짜기 시작 def leen def leen def leen dellu gannaaw bu leen boo distance bu leen seere bu leen seere Iran ab dolyo dolyo cegi ten cegi no dol set ke encore no dol set 바로 전력 나 준비 아라마키 준비 आपच्यागी संकटच्यागी दन जुमक बारो चिरिगी आपच्यागी संकट चिरिगी दन जुमक बारो चिरिगी ना दुल से ओके बारो encore une deuxième fois Achaki Chumi Non

salaamaaleykum ah, xam nga oustaz bi oustaz Arfan sànq dama ko ñeme ma dagg ko tegu ci baat waaye kii xale yi mu jàngal lii su ma ko daggee ba mu génnee léegi ci tànkam yi du ko fekkee moo tax may naxanteeg moom ndey di ñu des këng fu këng fu des na monsieur Ndiaye oustaz Ndiaye moom ah tax na ma ragal oustaz yi ndeke dañuy denc ay ay mbir ci seen tànk yi moo yor C1 C2 islamique ba pare nekk ceinture lan la hmm? ceinture rouge plus lu ci topp noir

shawalin hanzolanze ik yàpp shaniyu shuaniyu shawalin hanzolanze Diat excellent euh, ma may leen benn benn laay maa wax waaw léegi may leen ma may leen benn jàppal waxal ma yaar jàppal Yaat Shan Yu Shan Yu Shaunin Han Zoologique ich আমার Kichwani allahu akbar oh. xam nga ne ñii dag leen wóorul de ñii ku leen dog ku ne ñu damm la ustaas bi eh ndey xadi ñii nga am foofu xam nga ne askar bi gën bee de bii moom ku daloon ñoo fii bëgg a kenn portable jàmbur xale yi lañ booleel bu leen denc seen téléphone yi ndax am ngeen ay garde léegi incha allah dañuy jox oustaz ñu dugg ci. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, chers parents ñi ngi leen di ñi ngi jéggalu. cérémonie bi alhamdulilah guddi na guddi na lool toogaay bi yàgg na. mais neex na am na solo incha allah niñ ko waxee woon si suba rek xam ngeen tey journée xale yi la. neuf mois ñuy jàng ba mu des benn fan ñu muñal leen ñu feeti ko dafa nekk lu am solo léegi nag ñu ngi jëm ci li tax école bi jóg li tax école bi jóg mooy lan mooy résultat résultat xam ngeen ni doon def yëpp naam lu baax la mais li gën a am solo te école bi gën ko bëgg mooy xale yi jàng te am niveau jàng te am résultat yu baax yàlla def na alhamdulilah euh, école Zeynab Ghazali ren seetlu nañ fa benn avancement bu rëy yokkute bu rëy ci wàllu jàng ci wàllu pédagogie ci wàllu formation ba tax na tamit résultat yi macha allah vraiment boo demee ci classe yëpp li dalee euh, ca jardin ñëw CI CP CM1 résultat yi ren yi ñu am ren macha allah ren nag la ñuy def suñu première sem de ren la ñu am le Zeynab Ghazali am première CM2 xale yi nag def nañu certificat arabe def certificat français yéen ñëpp ngeen ñaanal leen ñu am 100 pour cent wax leen yéen ñëpp yàlla na ngeen am 100 pour cent parce que loolu mooy publicité école bi première CM2 bi li ñu ñaan yàlla mooy xale yëpp at mi kon yàlla na yàlla def xale yëpp ñu at mi. léegi ñu ngi jëm ci euh, comme ni ñu koy waxee rek ku góor góorlu ñu ne la jaajëf waaw d'accord ku góor góorlu ñu ne la jaajëf léegi xale yi nga xamante ni ci classe yi nekk muy français arabe. ñetti première yi ñetti ñi raw la ñu bëgg a jox li nga xam ni moom mooy seen table d'honneur ñuy woo inspecteur Omar Fall inspecteur Omar Fall ñi ngi koy woo ci kaw ngir mu joxal ñu cadeau euh, maanaam table d'honneur xale yi nga xam ni ñoom ñoo raw ñetti xale yi raw ci kalaasu CI bi da ngay taxawee nii euh, ki ci njëkk classe CI français ah CI français première mama ay Ba la tudd mama Aïcha Ba ay na ñëw mama ay Ba moo jël première ci classe CI français aywa inspecteur Fall moo koy jox tableau d'honneur am euh, deuxième bi ci classe CI ba tey français Serigne Moussa Gadiaga ah waaw Serigne Moussa Gadiaga bu dee parent mi ngi fi tamit bu ñëwee ñu mën ko jëlaaleeg moom dafay baax Serigne Moussa Gadiaga mi ngi fi parent mi ngi fi après kële la ñu jël ak parent bu ko defee bu mënee jël photo mu jël photo mama Aïcha parent mama Aïcha bu dee mi ngi fi mën na ñëw. affaire yaa ngi voilà première maman Aïcha mi ngi noonu déet première moo war a njëkkee <laughs> aywa kon jërë ngeen jëf euh, ñooñu ñu jërëfee troisième bi mooy Roqaya Samb kooku sama doom baay la Roqaya Samb kook sama doom baay la ana parent moom mooy troisième bi ah waaw noonu la de Sambeen yi moom wute nañoo kamara kamara yi nga xam ne ñoom ginaar rek. benn ba caméra ngi ne moom boo ko boo bëggee xam fu ñuy lekkee ginaar yu nooy rek laaj ko ko si Dakar mu won la ko maawaa kon loolu moom mooy classe CI CI euh, français léegi ñu ngi jëm ci CP CP français première bi mi ngi tudd Bilgi Bilgisa Bari Bilqis bil xisabari ay na mi ngi fi parent bu fekkee mi ngi fi moom moo jël première ci CP français ana parent mi ngi fi waaw ana parent bil xisa léegi première yi nañuy xam ni waaw les trois premiers mais moyenne générale bi la ñu jël kenn jëlul moyenne trimestre ñu bàyyi ci xel kook mooy première ci CP1 ah, français deuxième bi Mouhamad Matar Dabo Mouhamad Matar daabo deuxième ci CP bu dee parent mu ngi fi Mouhamad Matar daabo mu ñëw Mouhamad Matar daabo tata daaba na noonu parent ma ngi noonu di ñëw aywa kooku moom mooy deuxième ci CP français léegi ñu ngi dem ci troisième bi ci CP bi ba tey français Serigne Fallou Ndiaye Serigne fallu njaay ana parent am Serigne Fallou Ndiaye parent am na jege si Serigne Fallou Ndiaye wala ataay wala ataay aywa ñu dem ana yaa mi ngi ñëw mu ngi nokki noonu di ñëw soxna si nga gaaw tuuti ndax heure bi dafa ñoo dab aywa ki ci ñu ngi jëm classe C1 ah classe C1 français c ki jël première foofu mooy maam Sidi Lamine daabo maam Sidi Lamine Dabo première ci classe ci 1 ki jël deuxième ci classe C1 maam Seymou Dabo parent mi ngi ñëw waaw ki ci topp parent bu préparé muy Maymouna Touré C1 deuxième Maymouna Touré elle n'est pas venue bu fekkee parent mi ngi mën na ko jëlal waaye na ko paanam jëlal yéegal ñu jox la ko Maymuna Touré neen dafa feebar yàlla na ko yàlla saafara mu wér ak jàmm incha allah waaw ah, kon param moom moo koy jëlal mooy deuxième ci classe troisième soxna jaara Samb kooku it Samb la sant de ba léegi dégg guma fi kamara kama benn kamara ana mu ana parent mi ngi fi ah kan mooy parent Mati Diané Mati jaane mi ngi fi Mati jaane ñëwal bismillah léegi classe c lañu jëm c ce de classe CE2 ki jël première waajuram mu préparé wu mooy Khady Ndiaye CE2 première bi mooy Khady Ndiaye français CE2 français Khady Ndiaye Khady Ndiaye ana parent mi ngi fi xaaral parent bul fotogum te parent ñëwul deuxième bi ci C2 parent mën na préparer mooy soxna Gajaga soxna Gajaga parent mën na jege si aywa euh, deuxième soxna Gajaga moom tamit table d'honneur ah aywa troisième bi ci classe c de français mooy Khadija Camara ah Camara Camara yi am nañ benn Khadija kamara Jamil yow ci gil nga Camara yi ah Khadija Camara troisième C2 français xaaral parent bu ñëw après ñu ngi jëm classe CM1 français CM1 français léegi hmm, mu jeex arabe bi moo des après bu ma la joxe français bi rek damay ma jël parrain bi ak kale aywa jërëjëf félicitation yàlla na yàlla def barke léegi ñu ngi noppal euh, euh, wax euh, <laughs> monsieur l'inspecteur merci ñu ngi woo la marine moo ñëw moom tamit joxe quelques tableau d'honneur ci élèves yi nga xamante ni ñoo jiitu ci seen kalaas jubluwaay bi nag moom mooy encourager ñu jël première deuxième troisième waaye ñaax seeni moroom pour bu bu déwénee ñu xëccoog ñoom première beeg deuxième beeg troisième bi ngir ñoom tamit ñu jox leen ay table d'honneur waaw ndax ku nag ku def lu baax nag koo góorgóorlu nag ñu ne la waaw góor waaw léegi kon ñu ngi jëm classe sem 1 CM1 euh, français ki si jiitu mooy Alassane Sow Alassane Sow soxna si bu fekkee parent mi ngi fi mu jege si Alassane Sow ndax parent mi ngi fii ah ñëwul voilà dafa jóg baax na après boo gisee nga dem kii photo la aywa deuxième bi mooy maam jaara Mbakke deuxième sem un français maam jaara Mbakke troisième bi moom mooy Ngone Dabo Ngoone Daabo moom itamit moo jël troisième ci classe bi kon ñii ñooy ñi nga xam ni li dalee CI euh, français ba CM1 français ñoom ñoo raw ci seen classe ñu leen di ñaanal yàlla yàlla subhanahu wa taala yokku leen xel yokku leen góor góor lu encouragé leen seen morom yi tamit ñu leen di ñaax bu nee ñu xëccoo ko ak ñoom léegi ñu ngi dem ci classe arabe bi Rokhaya Samb moo topp ci deuxième CI Rokhaya Samb Rokhaya Samb bu dee Panamu Umo Hayati Ba ok d'accord après arabe waaw kan mooy première Mouhamad la ni nga ko teg parent mi ngi fi Mohamed Touré waa jegesil donneur ma ngi noonu ñu koy encouragé bu baax a baax ok deuxième maam Sidi Lamine Dabo troisième bi Mouhamad daabo Mouhamad Dabo c'est de arab voilà li mu tegaloo noonu la d'accord léegi ñu ngi jëm C2 arabe. C2. troisième bi ci c bi moom mooy Soxna Gajaga. am na français am arabe Alassane Sow. léegi ñu dem ci troisième bi aywa kon tafaddali bismillah table. Та й на гривна, ну наявно. Ба? sama papa ñëw na ñëw ماذا أقول asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum Euh, ñi ngi sant yàlla di julli di dolli santaan ñëpp di gërëmaan ñëpp di jéggalu aussi parents d'élèves yi parce que woote ñu wuy si la rek amul lu ko gën a rëy euh, ginnaaw sant yooyu ñi ngi gërëm di jiital ci sant bi suñuy ñaari waajur parce dañ ne feccu lii su neexee ndey ji moo tëye si mbagg yi euh, suñu waajur bu jigéen nekku fii mais suñu waajur bu góor mi ngi fii te mi ngi mel ne ñoom ñaar ñëpp ñu ngi fii kon ñu ngi koy sante yàlla di gërëm tamit suñu borom kër parce que moom tamit luy ndiig moom mooy njaag parce que suñu jàppalewul woon aussi duñu am fit wala duñu am kàttan pour mën a taxaw ñun lii nga xam ne ci la ñu nekk te muy suñu wareef parce que yàlla dafa dogal ñu nekk ay jigéen te arab bi nee na jigéen moom mooy école su baaxee lépp baax su bonee lépp baax ñu gis ne dañuy woote ne ñun ay jullit lañu te dañu ne personnalité ak dignité yàlla moo ko am ak yeneentam ak ñi ko gëm ñu xalaat ne wala ñu gis ne personnalité boobu nan la ñuy def pour mu nekk ci suñuy njaboot comme que ay yaay lañu comme que dañuy woote ne ay jullit lañu kon jaadu na pour ñu participer bay suñu waa ci éducation xale yi moo tax ñuy jéem ànd ak suñu kilifa yu baax yi suñu wet ku ci mel ni Oustaz Samb ku ci mel ne doyen Diouf te moom ñëwut tey ku ci mel ni inspecteur Fall waa IEF bu Dakar Plateau mënuñu leen fay mënuñu leen fay parents d'élèves aussi ñu ngi leen di gërëm maman aussi ñu ngi koy gërëm moom mi ñu marraine bis bi parce que defuñu ko rek marraine wu yaama neex mais dasee jàpp te yàlla tax sans tricher mi ngi ñuy xelal di ñu jàppale ci lu feeñ ak ci lu nëbb kon ñun tamit ñu ngi koy bàyyi ak yàlla. parent yi aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois toogaay bi metti na mais lii day wane ne bëgg bi ñu bëgg seeni njaboot lii day wane ne yëg bi ñu yëg ne ñoom ay responsable lañu. te ëllëg yàlla dina leen ko laaj te nag bëgg nañu seeni doom fu ñu tëll ñoo xam ne duñu n'importe qui ñun loolu sentir nañ ko si yéen nekku ne nag li ma nekk jigéen moo tax mais dama gis ne maman yi ñoom tamit macha allah parce que pendant neuf mois ñu ngi nekk ak seeni doom am na yaay yoo xam ne ñooy yóbbu ñooy indi ñooy fay ñooy def lépp si seeni jàng doom loolu tamit ñu ngi koy saluer di leen ñaanal yàlla bu ñu séddale dara seeni ginnaaw personnel bi aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm enseignants yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm lépp loo xam ne war nañ ko def pour xale yi am ndam am réussir si seen jàng ñu ngi ciy taxaw vraiment kulim juum mais ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan xale yëpp yal na leen yàlla def ay mag yi am ñam ñu màgg bay jëriñ seen réew jëriñ seen diine jëriñ àdduna bi yëpp ba ñëpp di leen coow yàlla sañ na ko mën na ko yal na ko yàlla def ñu ngi jéggalu encore une fois di gërëmaat aussi suñu papa parce que tamit papa yaay la lépp la ñun daal ñu ngi gërëm ñëpp ala kulli xaal jërë ngeen jëf. voilà kon euh, ñu ngi gërëm tamit euh, directrice mais di leen xamal ni école tëj na mais xam ngeen ñu ngi jëm ci vacances vacance man mi école. jàngi la nga xam ne mooy alquran mën a mokkal alquran ci ñaari weer. lu baree bare bari yàlla bind la ci yiw ci loolu école bii di Zeynab Ghazali moom ci boppam dana organiser daara vacances yaakaar naa yëg ngeen ko mi ngi dépa mi ngi démarrer la 15 ci weer wi ci lay démarrer euh, loolu nañ ci bàyyi xel bu baax te may gën a dénk parents yi di leen gën a ñaax nañu veiller nañu surveiller xale yi surtout ci wàllu géej gi nañu surveiller xale yi ci wàllu géej gi parce que géej gi mi ngi yóbbu xale yi de. te boo buñ ko nee télévision nga xool tefes yi dafay fees dell dell dell dell dell te suñu doom yi ñoom ñoo ci nekk nga am doom mu jàng ba at mi jeex mu war a vacance géej gi yóbbu ko loolu ñaar ñu ko yàlla yal na yàlla aar xale yi yal na yàlla sàmm leen aar leen waaye ñun waajur yi ñu gën a bàyyee xel xale yi ci vacance yi ku ci am moyen yóbbu sa doom daara vacance yóbbu ko daara vacance ku ci am doom euh, maanaam moyen yóbbu sa doom feneen ci loo xam ne dana ko tënk ba du mën a dem doxi di mën di dem géej ak di dem di dugg ci loo xam ni kenn xamul lu mu doon na nga ko def te it foo toll del laaj ca ana sa doom waaye sa doom génn ci kër gi suba ba guddi xamoo ci lan la nekk xamoo fan la dem ah ñu xëy rek jékki-jékki téléphone la kar nga ne waaw ñu ne ah sa doom de lab na ca géej ga wala boo kar nga ne ah ñu ne sa doom de accident na fële loolu yàlla nañ ci yàlla musal kon nag ñi ngi leen di dénk yéen waajur yi gën leen bàyyee xel xale yi ci vacances bi gën leen bàyyee xel xale yi ci vacances yi bu ko defee incha allah ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala euh, voilà madame Camara mi ngi yóbbante nee mi ngi gërëm mboolem ñi bokk ñi nga xam ñoo taxaw organisation bi ci Amadou Rakam ñoom Abdallah ak ñi ñu àndal enseignants yi si taxaw ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal di gërëm di ñaanal it euh, suñu naataangoo bi sama waay la sama xarit la sama habib la muy Seydou macha allah gis ngeen bi mu ñëwee si suba rek man dama ko jox micro bi yàlla na ko yàlla taxaw bu am solo ci islam. waaw parce que dafa yore benn euh, nu mu tuddati ah. site internet benn site internet la yore. waaw di ci def publicité di ci liggéeyal islaam moo tax lii ñii ñi ngeen fi gis ñii ñëpp ci équipe am la ñu bokk. waaye ànd ak loolu macha allah oustaz la jàngkat la ñu ngi koy ñaanal di ñaanal yàlla ñëpp di ñaan yàlla mu dajalewaat ñu fi déwén ak déwén jéeg incha allah waaw. jox xale yi seen cadeau ñu fekk si leen. waaw ñu ngi ñaan parents ñu toog ñu jox xale yi seen cadeau ñu fekk si leen fi ngeen toog parents yi ñu toog seen place ñu jox seen doom cadeau yi ñu fekk si leen. léegi ñu def ñaan allahuma rabbana atina fi dunya xasanata wa fi laxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana bada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab allahuma la tada lana fi maqamina hada danban illa gafarta ولا هما إلا فرجت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مريدا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا جاهلا إلا علمت ولا مذنبا إلا غفرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل مغفور اللهم فكما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في رحاب جناتك جنات الفردوس يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد